mbokk yi dal leen ci jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois xam ngeen ni dañ leen di toppal actualité fële ca clinique Madeleine jëyee ju rëy moom moo fa daal di xew benn bébé moom moo fa daal di ñàkk bakkanam ci ay anam yu doy waar xale bile dafa daal di asphyxié ginnaaw bi mu juddoo ci guddi 7 octobre ki nga xam ni moom mooy doomu Karina Yacine ak Reda Saleh bile dañu ko daal di yóbbu fële nga xam ni moom mooy nurserie ba foofu nag mi ngi nekkoon su photothérapie ki nga xam ni moom mooy xale bile dafa daal daal di maanaam dafa daal di fatt daal di génn àdduna loolu nag nekk mbir mu doy waar mu xew fële nga xam ni moom mooy clinique Madeleine li nga xam ni jot nañ ko su suñu ay naataango yu waa Sénégal ñu ngi wax ni li nga xam ni moom moo indi jëye ji la négligence la maanaam càggante gu jóge ci waa clinique boobu di waa clinique na ñi nga xam ni ñoom ñooy parent wu xale bi nee nañ fasuñu yéeni bàyyi affaire bi mu daal daal di jàll maanaam dinañ ko topp euh, jusqu'au bu loolu nag nekk benn jéye ju rëy ju xew fële nga xam ne moom mooy clinique leen benn bébé buy door a juddu daal di ñàkk bakkanam ci anam euh, yu doy waar comme à chaque fois nag continuer leen di topp seen site d'information limametti.com ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar.